<laughs> mon frère il faut que ak sa rose rose rose bong bong karawaat selfie reefaan maa ngi dem aéroport jëli ji Elena ta aéroport aéroport yow Elena heure ndogu lay agsi xanaa nga bàyyi laisser 16 heures mais suba si fo jëm gis nga lolou ngay wax wóoru bayil ma téla dem jëliko ko bu né cëpp mën ko coppet kër parti sen té nak attention toogaa jigu la yaa ngi jël poids dé kay non non garde sa menace rek kay rose bi mom si jaxal mais comme jogoy sen la baxna baxna bon may dem ah ay d'accord maa ngi bëgg yàgg ci bi suba heure te man bam fi taxé bu légui sa dama gisul ben avion bu wacc fi ci aéroport Yoff ya, est-ce que du nek nekk weeru koor tax avion wacc ju Elena est-ce que jërul bato defal waaye Pathé Sène bàyyi ma waay yow bàyyi ma waay yow bi may dem fii tàgguma la maa ngi dem ay aéroport. ñoo ñoo yay nelaw ñoom dañoo regg di nelaw man damaa xiif maa ngi dem ay doon na ma ay aéroport bi dañ ko changé may nangi nangi fu ne ma taxaw fa ci yoof yaa <laughs> yaay ree da ngaa regg réel. yow jógee da may déglu fii lan nga ma wax li jënti sa surmenage te sax yow jógee yow boo demee ba aéroport yoof bii nga taxaw taxaw gisoo avion bu yéeg gisoo avion bu wàcc gisoo ay gan yu dem ak ñëw gisoo dara guddi jot lampe yi fay sa xel war a tey sax xanaa waaw aéroport buñ buñ ko buñ koy sensé xanaa dina président dina ko inaugurer sax ah wala ñu publicité ko nit ñi xam ko ñu koy nëbb lu ñuy nëbb ci aéroport loo ci nëbb waaw yaa yaa reer da ngaa regg da ngaa regg yow yow dégluwoo information seetaanoo liiroo yow lijjantiwoo dara Ah, yow ma ne yow. yow bi ngay jógee Refane di ñëw romb ay avion yéeg a ko wàcc fële ci àllu jas bi foofay aéroport bu bees bi. ay ma man ay ma ay maa ngi xiif bay bëgg dee kan moom may jox ma lekk kan moo may defaral ma man ndogu man waaye waaye naanu ma waay dama ko kële rek dama ko kële. Eh, lekk baa ngi fay pareel nañ ajaar pareel naa lépp. ana Elena. eh foo jëm foo jëm. Elena tëdd na bu yàgg dafa sonn bu tëddee man duma ko gis. yéen a dëkk ci kër gi non bay bu suba nga gis ko. yaa moom sa kër dafa loola neex yàgg nga maa koñe loolu de. tu veux quoi. Elena. déclaration bi mu bëgg a def awma ma kersa pour def ko ci sama kanam Ndiobé. joxe do bay bi ñu wéy. ah partisan di ma même wax ndax bëggel dafa xor kenn mënu ko denc te ku ko denc mën na laa gaañ te dafa am fu toll ci yow. Elena, mon carot, je t'aime. Je t'ai apporté de fleurs. chocolat, devant toute la famille, famille. devant toute la famille, devant toute la famille. Doudou, joxal un mu jottali yaayam. Nicolas, c'est pour ta mère. Adja lépp yow la kenn du yow. Jokalante kaay reer Adja bisimilah. jërëjëf di des ci ah, sama dund sax bëggatuma ci lekk ndax kontaan. kaay reer Jokal. xol sedd na Adja. mais Jokal kaay reer. nee naa saa yu ma xoolee jéggal ma sama xol sedd na. ah waaye nii ngeen di woore. ah xool ko kii. ragal ragal góor. ah ah kenn yow nii nit ngóor. ah boo ko dóoree mu tiit tam la nak na ngeen def duudu lima sen ma seen wax bu fekke loolu ngeen def tegalon ko ci yoon da ngeen wara xamne da ngeen bokku ci yax bu rëy bayti sen dafa fecc fecc fecc ban na fecc dong la man munu fu ñuk jël way wax ak baat bu neex ndey sandi way ñepp nan baytir baytir cat top ko ñu liggey sen mam mu de lii rey seen maam moo way di lañ ko tek ci yoon tek ko ci ne yi genn keur di genn instrument soog a ñëw seen maam da daan fecc di fecc xam nga nu ñu ko doon tudde reefaan hmm. ban tur lañ ko joxoon biir reefaan hmm. peppe kale da daan fecc bañ naan ko peppe bu ma saa ñëw góosam hmm. bañ na peppe kale way woow sax dina dinaa lañ ci defal clip dinaa lañ ci defal clip léegi bu soobee yàlla dégg nga père yow la nee ay sutu mbay tir seen ñoo def way mun a xarit di ko gëm ana li ngeen xanaa ma ni baajo xanaa xanaa doo fi jaar xanaa ma ni baajo xanaa xanaa doo fi jaar xanaa ma ni baajo xanaa xanaa doo fi jaar lay xanaa ni baajo ay e, jël sa téléphone def ko mode selfie yow appilon tas sa flash biñal biñal biñal dugal fa selfie reefa jël sa téléphone def ko moom di selfie yow appiloo caas sa place waxal salfiré fan biñal bébé biñal koko biñal maj sa tuñ waay na moo coco safa nga soko ah, biñal tur boobu moom bu tug mukk wala yàq album bi coco coco baaxul eh, ba coco baaxul génn coco rek bu duga coco ci ah, bi de moo neexal way eh, yow ngor maa di génn leen coco ah waaye itam yow na moo dara saf nga soko bi ña ma sa tuñ waay yow danga taaru teg sa xale bi xam nga na moo dara yow bul déglu waxi noon lii yàlla la tarkal sa laay nii laa ko bëgg doomu géwél day am dégg-dégg kër ak ngéwél a ngi nii li ñu mbañ moo fi am te ba bu sooba yàlla naa la xamal leen maa leen ko garantir nag dinaa la defal surprise bu ngeen defee clip bi maa leen génnal fecc mu bees boobu ñu naan Pépé Kale nañ ko clip boobu moom maa leen koy defal pepe kale. moo reefaan pepe kale. ay reefaan pepe kale. ay reefaan pepe kale. ay reefaan pepe kale. moo reefaan pepe kale. ay reefaan pepe kale. ay reefaan pepe kale. ay reefaan pepe kale. ay dem ak moom pepe kale. ay dox ak moom pepe kale. ay dox ak moom pepe kale. ay dox ak moom pepe kale. ay dox ak moom. seen lii yow lu tax na nga woo lii. talmat ma xalé yang ko yëkëti mbar ko ba tekku ci suuf xalé dañu mëna wëy nak dé eh wëy rek lañu la ilaha ba nga ci duggé la xamné baaxu nga dafa vulgaire léna do ko ci ci bonom moy ciocio ciocio ba la dindi dug dugal ci sel rek xalé tay da wëy rek nga rek ah, alaykum salam monsieur biram bienvenue mon ami comme là comment je <laughs> Naka mu. mon doom moo nekk nii. oui. elle a grandi tu vois. comment tu vois. tu te rappelles non. bien et toi. ça va elle a grandi elle a grandi. <laughs> sinon. je te présente mon petit frère. Diogoy Sène. Diogoy en santé en santé. moo petit ci voilà. ah moo topp ci yow. Birame ça va. mais Diogoy alors. discussion bi nice na. nga ne. xanaa bi Côte d'Ivoire ma ko jëlee. mais booy yaay nant yaa dégg. non ni ko agencé nice na. bés bu set man leen ivoirien laa sol mais duñ ko gëm. mais booy xanaa refaan nga juddoo yow. noonu nan tege. si si ak verre bi nga ko tegee nii sax dafa nice. déggal déggal déggal déggal. mooy loolu quoi. non mais ah, dafa stylé dafa stylé nice la def nii. waaw ah. eh, na. nice na yaa ma gënal paate de ak. kii ak ay rob ak moom ay rob ak. mais doo ma seen baa nekk nii. ah waaw waaw moom la. Hmm? moom la de. xale bi dafa sekk ci diggante bi. nii nag booy bi day mel ni mbooloo rek. waxtu mu la jot rek day sekk moom. dafa am koy jël. jël fan fii. waaw luy jël. maanaam dafa ngeen koy kii ci kër gi wala. doxaan waaw di dëpp fii kenn ku fi doxaan fii kenn fi ñëw. boo ko bëggee tamit mën nga koo doxaan xale bu baax la de. waaw kenn du Elena. Kan, eh. Elena. xool ko. yaay ni nga gisee sourire bu neutre bii nii ab lay ab so bato ya di suru dugale ci neeg ni sa tankay yaa juk barki rasulillah hmm. hmm, ni ngay gisee ni hmm. da lay raax di la muul di la beton di la sama ah, ex la won elena la de elena mi neutre la waye xale bi ay cléo mak ay ay <clears throat> benen affaire la et duma ko fobat sax parce que man man kay koy wala sama yaram ngi commencé daw sax xale bi ni ko ah Elena su xalat man ak mom fuñu jaar yeb. Pathé rek la ci rus de. Pathé Sène Elena ta? kaay leen. yow ya, ndekete yeen man ngeen di macro yéen ya. Yeen man ngeen di macro. Nek waaw dimbali ma. kii ndekete xam nga ko. di fi andi faro Elena ta ci keur bi. di di ko déyati ci suuf dafa man xawma. ma. man duma xale man dofuma ci na japp de quoi tu parles xam nga li ma lay wax dafa dina jàpp ko. toogal ñu waxtaan eh, xam toogal. xaaral ma jóg si yow kii dina toog kii li mu wax ci yow daanaka saaga saaga na ma nday kii saaga nday def na ma ko. ma ak Elena ñoo bokk benn maa koy peinture di ko raax. di ko fondation di ko pilpilal. bul ma tudd. dimbali ma rek wawuma la fi de ya indi sa bop dimbali ma nga ba ma cin bi nga may jinde tanku kan tanku cin bi nga may jinde sumay tanku tànku xana xanaa ñak nga yow ça suffit ça suffit biram déglu ko rek biram dimbali ma rek bul fi toj ba pare dem sa yoon boy dem demal kon amoon na kon amna? na togal ma kon ki raax bi peintre bi muy wax amna señ bi man dal ma tomber graway man garaawaay laa tombee non da ngay ñëw da ngay ñëw Eh, voilà, tu peux partir. Biram, demal. Biram, quel nom Sors de chez nous, tu n'as pas de prix dans la maison. Allez, pourquoi Merci, au revoir. Comment Suma amulon lumay set dama lay ray te dëkk eh, kasso togo ye eh. ndax ma sagalu man ki nan dala duggal ci di la di la di la fondation xana kon man graway la topel bu eppal nak quand même dara togay man mako fi andi ba ta sen awma lumay wax ak yow ño bok ben bay mais do dara may ma doo bàyyi ma expliquer man a sama aduna suma am loolu lu may seet ngëj te dañu yàgg sax nak ah, <laughs> comme basangu ci man dina ci def sama kentou lay kattan mu ngi jënd loolu vite fait jóge ñëw nga ça va waa léegi bayil ma juk euh, wax ak kilifa gi. d'accord y a pas de problème allez vas-y hein, tout à l'heure là nga def. ma ngi fi. moom wax na la ne day sey sey waaw. de yëguma ko. te nañ trop hmm. waaw. kon yow ça nga njaaloo. ça sama sama waa ji xanaa loo caga caga caga man fee bàyyi jaboor jàmbur. sequma koog yow nag. lu tax Sénégal bëgg jàmbur jaboor jàmbur. sequma koog yow amoo benn droit di ma wax sa wax yi. xamuloo ma xaw ma la. soxlaw ma laa xam. amoo benn droit di ma traité man xam caga te dafa doy nag. doyul doy na. yow ngay tapet naa ma dafa doy ngëj. ki mooy jógee. jógee si. ah donc moom mooy jógee. man la ok man maa ngi dem. jógee seen yaa ñàkk fayda. du ñàkk fayda man xale duma kale kale man xale duma kale kale boo ma bëggatul nga ne ma la waaye di dugal mboocaa mbooci ndaw yi nga xam ne tekkuñu dara ci dëkk. jógee noppi. yow sama kanam gi fan lañ ci marke ñàkk fayda joge dangaa dégg na damaa ñàkk fayda man bu ma jógee France ba fii ñëw ne la yow laa bëgg mënoo ko gëm te yàlla tax te xam ne man dama la bëgg te yàlla tax waa jógee yaa ma bett doomu jàmbur ji nga téye dee toroxal ko ba mu def tot moo la war a yóbbu France de. ndax yow amoo kayitu juddu bay xalaat visa. kii moo nekk ci sa papier bi ci daw subaak ngoon

am ak ñak la la yamale hmm, baaxul boobu wóorul la illa Elena yow lay waxal dama ne yow do do do ma laa waaw may rombee ni mo nuy la xamul yow lan la paate seet ngay kilifa may kilifa Aja, bi ma koy bëgg jenar. ca ndar chaque samedi su ma demee fekk fa góor gu bees. yow mii. chaque samedi laa la wax mu dàq ku bees ku bokkut ak moroomam est-ce que xam nga la ma am ko lan. daf wax ma ko. am lu am ni Elena jóge bitim réew. xamuloo ci maam Awa xamula ci maam Adama xamantewu leen mu ñëw gis la cëpp bëgg la te yàlla tax soxlawul sa dërëm amul loo koy jox wala loo koy jaay ba mu saf ko mu ñëw dox ay tànkam ba ci yow ni la dama laa bëgg ah loolu mënu laa doy. ah dëgg la sama mag sama kilifa nga waaye foo ma dog la gis nga man mii ngay gis nii man VIP séeréer laa am ak ñàkk laa yemale daf may mën a respecté munu ko mu dem ma dem. nay jël France sam ma jël sama reefaan. Cogoy xanaa dangaa déggul li ma la wax Elena nee na la Cogoy affaire bi yow la. góor ñi dugg a génn nag lu si sa yoon mënoo mais jigéen la war nañ ko mën a gis bëgg ko jekk na macha allah te góor bu gisee li mu bëgg nag faw mu uti ko mais seetaan leen dafa mel ni wóoluwuloo Elena gis nga boo continuer yu mel ni Elena bëgg ko. da nga koy ñàkk laa la wax da ngay perte lépp te gis nga bu boobaa booy génn kër gi waxuma la yoonu aéroport waaye directement fan nga jëm ngay def ak sa rose ngay mel ni crème glace nii eh xoolal man dooma ci yab nag de mu naan ma crème glace lu ma boole crème glace dulu lo may buuxee mu mau dulu nga may buux. mau jadi sama montre. te moom laa lay seetal nii. nga may buux mi ngi nii. kaay andi ñëw. Prends. C'est quoi ça Si Kango, le plus bon si. Wow, c'est tellement bon. Regardez. Là, il va battre. Ma pari ferme. Eh, c'est Congo. Oh, oui. C'est ce que j'ai mangé l'autre jour au chocolat C'est trop bon. Tiens, Nicolas. Perozaco, Perozaco, dormez-vous. Pam, param, pam, pam, pam. Pam, param, pam, pam, pam. Pum, pam, pam. Nicolas, mon fils. Ah bon, Nicolas Tu sais, moi. C'est ta mère. Hé eh Ne parle pas de ma mère Laisse ma mère tranquille Arrête de la suivre Tant que je serai sur terre, jamais tu te marieras avec elle. Hé, eh, grand-père, ça va Ça va bien Ça va Assieds-toi, ah, viens, on va parler. Ça va, Alhamdulillah. Sinon, le village, ça va bien yeah, ça va, Alhamdulillah. Mais aujourd'hui, il faut que je te rencontre une soirée. Ah bon Oui, au village, il y avait un gars qui est très... Il a de la trouille. Maman, Boukhat Tapet, t'as ah compris ah, oui. Tapet Oui, quelqu'un qui est Boukhat, quelqu'un qui, qui, qui est Ragaldal, qui peur. Oui. S'il si voit euh, euh, un lapin, il dit que c'est un lion. <laughs> Baye Moussa Ndiaye la, gis nga bim Tu ci ñombor gogu. Eh, eh. Ci la jugé ci dem ci mbojum. Eh grand-père. ñoo wala ba wallahi wallahi loolu gën sama nijaay mi yàlla na deewaay man kii dama ko war a posone sax ñeenti fan yàlla sang woo tubaab bi topp la nii rek xam nga ne lii du nen de waaye pare gu ma ci samay fem de ndax di nga génn kër gi yow gis nga li nga wax ci xale bi du sens mérite la kuy sa maam nga ne béytir seen muñ naan ma ci xeelu asam may gu

l'occasion pour que Doudou. sëñ bi nga baal ma. Mhm. nga ne date bi kañ la. le 12 incha allah. waaw doo mën a génn douze boobu mu arrangé ñu. génn douze bi dugg fan. feneen foo dugg ñu fekk la. lu xew la douze bi ba ñu war mën a génn. Euh, Refane da ci am bu rëy. ñu fonk loolu jox ko cëram. Mhm. dafa am festival bu mag. ta baayam bii moo ko waroon a fecc waaye dafa échec. Refane. Refane te Doudou moo ñu fa day moo ñu fa war a représenté famille bi yëpp. festival Refane. Bal plastik, bal plastik. Ah. sëñ bi. alhamdulilah. sëñ bi lan la woon. ñàkk du réer borom xamoon naa dinaa am ndam. wuubi. jaay ma jaay ma. jaay jaay crème. bal plastik tijjil. wuubi. ay ku ma waxoon dina am. yow loo am. am na soow am buy am na bisaab orange. tëjal amna na ndox mu set tëjal. yow li ngay jaay sëñ bi xanaa woor ma lu soyoon sama ñàkk woor yow li jeer naa jaay yow doo naan lii te ñibbi waaye demal waay bal basi nga may wane daxaar ak essence banaana demal jalal waay dama ak nga fay mi ak 科里安去玩去。我说。Nate oh, woro. Kok udah udah. mon cœur bëggoon naa ñu waxtaan nga baal ma àq ci li xewoon démb naqaraw sa doom taxu mën a jóg mbuusu soo may fàcc rek te tooyal ko waaye man yooyu du sama affaire maa ngi jégalu bu baax baal ma àq. xam nga lu ma la bëgg laaj man ma jóge France indi doom ak ma jóge France ñëw man kese yow ça te dérange en quoi. dara. dama nekkoon ci ay loxo yàlla weddi boobu diggante ma ñëw fi gis la bëgg la. xalaat ne bu ma àndee ak yow di ma war a jàppale ci yaru xale boobu nga bëgg ma bañ sama doom. ah ah bañu ma ko bañu ma ko mbuus soome la rek waaye wër na yàlla ndax tax ma woon jóg maa ngi jégalu. Nicolas mii rakk ngóor la da nga koy xoolee bët yi ngay xoolee ngóor ñoom ñaar a bokk. yàlla tere ngóor ngóor daa bokk ak Nicolas Nicolas koy dama koy téye bu baax a baax a baax ngóor dama koy cof rek Nicolas dama koy ngëpp dañu différence ñoom ñaar yow yàlla tere ngóor de nitu dara moom la dafa di problème li ma la bëgg xam sax yow da nga wara a ndax sama kayit yaangi ni danaka ma ngi ci kaw legi parate dem France def sun mariage ma tak la ñu toog ci rew ma ma yor xale yëpp. waxu kayit yoy de gën na ma ñox sax. alhamdullilah comme deugër la legi man dama ñëw pour tok fi nga tak ma ñu tok fi ma subhanallah tok fan. mukk mbuye mii ah yow de yërëmoo ma yow mii mbaa du këyit euh, demum France moo la ci neex. déedéet dama xam ne France amul seytaane duñ dugg ci sëyi jàmbur dañoo maanu duñu ñaan baal ma dem foofu yow boo ma xoolee ni ma sañsee nga xam ne suur naa Sénégal nag doyal naa fi sëkk anu may delloo naa ko reefaan de <laughs> ndeysaan kontaan naa gis nii la lii mooy lii mooy bëggante ah. <laughs> ah <laughs> li may bàyyi bàyyi bàyyi def yow ko fi ñëw liggéey wàcc na instant yi na xam nga la lay rêvé ñu demee ba tour de fête def suñu mariage mooy photo bu rek di ko envoyé par bay tàng bi ci man dara déedéet xol bi sedd kay nag yow ma xam paate la xam nga ne ah, ah, ah, yé yé mooy su ma taxaw yow dootuma amati <laughs> yàlla na taa. ah Adja xale bi Tuh ma bàyyi wax ay rapport waay. Doudou yow itam. du ma moromam de. Doudou bàyyi li ngay def garaaw bàyyi. damay gedd ñam bi léegi nag. c'est que neexut a fàtte quoi mais garaaw. Pathé yow itam bàyyi tool yabay wala jën bu mag. ma pàccalal la limon. Aduh. Pendak, kalau main pendak waktu itu. Dek lo salat. Lo di premier no du. Premier salat xair minal naw mi nga def premier no. Way tegal ni teg leen ñam mi, teg leen ñam. Xale yi lekk sax. Way xale ak maga yam kenn mënta lekk. Salatu kay koor koor amul xale amul mag. Tegal duuru, tegal ngoor, teg leen. Way waay duur tegal ñam bi duur waasi nga fi yaa tegal ñam na tëdd. waaw na tëdd waaye bu ma demoon bañ bañ bañ bañ